man teguma fi sama bopp yàlla daf ne ku ne war nga sabablu sabablu wut ku nekk war nga ko def maye nag moom muy def def na ko ba pare moom rek moo xam ku fi toog après le vingt cinq moom rek a ko xam ñun ñi ñëpp dañu làmbaatu rek ku ne di jéem loolu nag doomu aadama bi war na ko def di jéem loolu bañuñu ko waaye waruñu si jéem bi nag ñu yàq réew mi wala ñu yàq réew mi si génn taal université fi ñu war tàggatee ñi gën a xarañ ci réew mi pour yor réew mi loolu lan nga bëgg ci réew mi ban defar nga fa bëgg a def loolu dafa li nga xam ne Sénégal moom la gën a am ci lu am valeur te train bi ñu def ñan ñoo si dugg est man la wala sama waa kër TER bi du waa banlieue ñoo ko moom bu ñu ko taalee kan lañ ko yàq BRT boo xam pareegul ñu bëgg ko yàq loolu mooy ban xeetu politique loolu aussi mënuñ ko nangu c'est-à-dire jàmm moom la ñuy woote waaye dafa am loo xam ne mënul nekk ci réew cest di mënoo ñëw ci réew tànn na yow lépp lu charte réew mi wax yow da ngay def le contraire day yàq chart yi ça veut réew mi day yàqu réew nag bu yàqoo mais amatul dara lu fi taxaw dara amatul parti politique syndicat kenn dootu fi am benn droit te leen réew yi mu am ndax bi ngeen fa nekk naan leader de parti la wala doo leen wax bu ne pas droit à la parole boo leen waxee ñu tëj leen ci kaso yi ba pare rey leen et c'est ce qui se passe donc on a intérêt à préserver ñu sàmm réew mi li ñuy wut ñu wut ko ci njëkk ak teranga ak gëm yàlla xam ne boo ko tuddee kenn mënul ci dara kenn mënu ko xañ mais bu ko tuddul mënoo si def dara boo andee asamaan ak lu ci biir doo fi nekk tous